waaw kay flam, flam, xëy na information bi daf ko wax nii rek mais c'est une information à vérifier eh waaw gis ngeen xale bi yéen eh waay saa waay monsieur Cheikh ngeen am foofu xool leen naar bi waay ah ah Times Square waay TikTok ah biir Brumel Brumel génération TikTok ah Brumel Brumel génération TikTok ah xale bi dafa baax sax naar bi ginnaawam bi baax na de gars yi bal? baal ci naar la wala wala spanish ah ah Birmel xale bi baax na ah ku am 18 ans ah ah xale bi baax na monsieur Cheikh rek monsieur Cheikh ngeen di am foofu ay waay waaw ah xale bi xale bi moom bagage mi baax na cey waay cey time seer cey Amérique eh kii de kii de ah xale bi mën na fa mën a fecc sax naar bi moom kii espagnol si la may nduroon waaw li dëgg la ah xale bi moom ah, kii de Shakira rek la ma jox man Shakira Shakira Shakira wow wow cëm ah eh, bi mom dina bari fii Ki xawma TikTok bu koy dugal oh wow lii dëgg la ah Birimel waaw Birimel gis nga lolu. seen way. Yalla mën bind ku ne fi du aljana, ku ne uru uru ayni, uru ayni yang fi Billahi barka so laaj Yalla bind oh xale bi ba xale bi toj na fi Billahi barka so laaj Lolu mo don lancement numéro 1 normalement waruma wax sax ci soko Sonko sanu Times Square la ma won len ci xalé xalé xale yaa uru ani yaa ngoog xale yu bax yi nañu xol xalé bangok ngoog waaw nañ continuer en attendant benen jinne di ñew japonais yi en ah, nar yi noir américain yi blonde yi ay wa yalla yaa mën bind Macky Sall moy ser milliards yi nga am do dem nga outil ci uru ay ñu melni en ah, Brumel Macky Macky milliards yu yor du ñu bàyyil réew mi mu dem ut ci xale yii Marème da ko koy permettre Marème nee na ko boo bëggee nga am ñaareel waaye makki dafa dof seer la seer la ne man milliards yu yor bu ma ko yoroon ah jël sama jamaa noir boobu sekk Sénégal ñuy dem Dubaï waaye makki dof la Macky seer la moo tax day dee ci nguur gi bu soobee yàlla ci nguur gi lay dee waaye xale bi da toj na lan laa doon waxati sax man de fàtte naa sax fàtte naa sax li ma doon wax waa xool leen bi bir ma xoolal boobu takku takkusaan Times Square ngay am waaw waaw façon jinne bu ne ngay gis billaay barki rasul laay waaw lan laa doon wax sax man de xale bi yàq na sama laay waaw xale bi yàq na sama laay maa ngi woon fu point bu neex laa nekkoon ci point bu neex a neex laa nekkoon xale bi yàq na sama laay li ma doon wax nag mooy ne Sonko waaw muy def déclaration loolu lay wax